Nous avons un peu de la diaspora bi di nos de doole Nous liggéey ñu Macky Sall président Nous Sénégal émergent nous de sunuy déem ak sunuy émerger Nous di daan sunu doole li nu yor fii ci parking ëpp na soixante-dix te ku ci nekk lu gàtt gàtt gàtt gàtt am nga vingt-cinq employés wala vingt-six ñu nekk fii ci diaspora bi fii ci parking yi Sacré-Cœur di liggéey ñu toog ba ci yàgg si ca bu njëkk ban ko defee bëgg noo yëkkati ba nu waxee président danoo woo ndaxte réew ma ko ñor jeunesse bee ko ñor kuy liggéey ko ñor mu wonu ba pale waxtan ak nun cheikh ak nun teraanga yu bari dal na delu len fa ngeen nekkal liggéey té comme néñu ñu kuy mbojjaan doo wéerta kóor nun liggéey rek lañu xam nu jog ñew fi di góorgóorlu di liggéey nun li lay duggal ci année bi ci réew mi néew ma ñëpp koy duggal waaye ñi ko fi bari wu année bu jot dañu duggal au minimum 120 milliards ci dëkk bi te loolu sunu ñàkk dong lañ koy defee kenn ku ñu jàppale amut liñ nu mën a jàppale mooy fii nu toog di liggéey noo ngi gërëm itam maire bi nu jox fii ba nu mën fee liggéey noo ngi koy gërëm bu baax président nag yàqalunu te danaa foog ne lii li nu bëgg a teg su ko yëgan du ko seetaan te diggante samedi ak dimanche te nun ñu war a dem feneen liggéey te fii plus de 1000 oto 10 000 voitures ñu ngi fi ñu fi yëkkatee fu nu jëm nun bañu ñoo dem fenn ndax ginaar la ñu xam nu marché bu sori te du nu yàqal kenn dara fu ñu yebal nu dem fa waane fan ñu yebal mooy fan bi nu jógee dem ci Abdou Karim Fofana mu woonu ñu fekk ko jam ñaajo mu proposé nu ne dina waxtaan ak nun ba nu yëkkatee la ñuy jox teg ko ci taabal ji kere la nu gëj sawar recevoir gisaatuñ ko ba tey ji fii ñuy waxe nun nag bañuñu fenn lu dañuy liggéey bëgga liggéey itam moo nu tax a ñëw fii lii nga xam ne nag moo nu indi fii

le 7 fan la ñu jëm bañu ñoo demee fan la ñu jëm Descorche ñoo nu ko jox ak Ageroute ba nu ñëwee Abdou Karim Fofana ñoom état bi dañu wax ne ñu dee ñu leen jox huit hectares jam ñaajo pour ngeen dem fa ba nu demee itam dañ leen wax ne leen nun bañu ñoo dem fenn yóbbul ko maquette bi tegal ko ko wan ko ko ne ko maquette baa ngi ni lii la tegal ko ci taabal ji mu ne dinañu woowaat ba tey jii kenn woowuñu ñu loolu ban ñooy itam noonu ba gisee président ca suñu première gis-gis ministère du commerce fekke na ko ministère du transport fekke na ko Ageroute ñii fekke nañ ko ah, Descoche fekke nañ ko ah premier ministre toog ah bun Ablaye Jonn waxe nun ba ñu neen proposé nun ne da ngeen di ubbi banque benn DIE pour ñu mën leen a jàppale ñu ne benn DIE ku koy ubbi ñu ne da ngay am registre de commerce import export carte commerçant NINIA ñun ñëpp ñu ubbi ci benn ya jël suñuy dërëm ak suñuy taxaat dugal ko fa ba tey amul suivi gisuñu dara bañu dara nag ñu ne jam ñaajo itam nun dañ leen ne bañ ñoo dem jam ñaajo mais bu ngeen di yóbbu da ngeen yóbbu foo am visibilité yóbbu nu foo xam ne fii bu nu jaayee mën a jël suñu dem dénkaane ko fa muy banque boo xam ne bii dañu fay mën a dénk li ñuy jaay parce que mënoo dem ci àll bu ne ndar nag ñu jox la fa ngay jaay oto di yore million di ko jël di koy sa poche buñ la agressé yaa ko defal sa bopp. man gis naa ci jëmmi bi président ak ni mu bëggee réew mi ak ñun ni ñu ko bëggee nun ak ni ñu ko bëgg a jàppale ak li mu nu wax ak li mu nu wan nga xam ne sunu carte de membre moo doon invité numéro un. nu fekk ko biir présidence mu seq ak nun taranga defal nu taranga bu yëgan li du ko seetaan ndaxte ku liggéey rek la bëgg nun nag feebar bii ngay gis am nañ ci ñuy dundee feebar bi di ku leen dimbali di ci ñaan ay dimbali ak yooyu nun ñaan nu kenn dimbal nun dañ ciy dimbali waane dimbali ñu ci kenn nun noo ngi jàpp ci fu bëtam xonqe ak lu mu bëgg pour defar réew mi on est prêt pour accompagner ko